ñu ngi lay nuyu nuyoo bu wéyoo ak di toxal nuyoo boo xam ne eh, sa mbokk moo ñu ko jox di sa soppe ñu fi bàyyi ak maam yi nekkewoon ay mbokk nekkewoon ay soppe démb muy sama xadal xalifa Cheikh Mahamadul Maahi eh, nu Mawlana Ibrahim radiallahu anhu eh, mu boole ndokkeel ak itam ngërmande ci passé ndokkeel li mooy munaasaba bi nga xam ne suñ doom Cheikh Tidiane wax na ko léegi xew-xew bi nga xam ne lislaam lépp ko moom ndax ndamal lislaam la ndamal lislaam la ndax ki yàlla tegoo natt boobu mu àttan ko te enu ko te nangu ko te muñ ko te yàlla lim diggee ci yooyu muñ ñi ne ne mi ngi ànd ak nag képp ko am dara moom laa suufeel euh, moo tax mu ne bés bi bés bu rëy la ci ñun ndax diggante kër Alaaji Abdoulaye ak kër maam Cheikh Ahmad Bamba duut ñaari kër benn kër la waaye kër bu yaatoo dafay bari ay buntu kër te loolu cosaan la loo xam ne lu yàgg la buñ ci duggoon danañ wax lu bëri waaye bugg ñoo jël sa ndax xam nañ fi nga fi nga toll fi mu nekk nii ci ay xat-xat mu ne ngërmande yi mooy euh, nattu yi nga xam ne yàlla wàccewoon na ko ci pays bi jamono yi passé te ki ci njëkk a jiitu muy Sayida Fatimatu Zahra nga ebal Cheikh Mouhamadul Bachir mu bàyyeekoo fii ak délégation bu mag a mag a mag ànd ak ay kàngam yoo xam ne yu bàyyeekoo tubaa yoo xam ne xam nañ ne fu ñu teew yaa fa teew mu ñëw wax fa wax yu jot yu rafet ak yee ca tegu teguñ ci weer ndax diggante moo Seydi Cheikh Ahmad Tidiane weer ak benn fan la nga dellu defati même délégation mu dellu ñëwati nee na xatawaat yooyu mi ngi koy tes miin bu baax te mi ngi koy mubaaraka mi ngi koy gërëm ndax loolu tegtaliwut dara lu moy ne yaa ngi sàmm kóllëre gi nga xam ne Eh, yaa ngi ko donnee ci maam yi ak ci bàyyi te lépp mos rafet ba agsi ci yow eh, moom nag mu am xaasib mustarak boo xam ne moo la booleeg moom ku ne xam na ne yow rajulul ilm nga xam nañ fi nga teg xam-xam ak ni ko itteewee moom it mu am nattu ci xam-xam moom ku ko xam xam ne subaam ak lépp xam-xam la culture la ci lay xëy ci lay gont moom bugut benn wétal sax bu du téere eh, ngeen tasee ci loolu waaw bëggante ci loolu mu ne mu ngi naw bu baax université bii nga xam ne yaa ngi koy taxawal te mu ngi lay ñaanal yàlla lu man lépp mat ci sa kanam ni nga ko bëggee te yàlla defal la ci ndam loo xam ne ndamal lislaam lay doon loolu nee na mu ngi la koy ñaanal yàlla mu ngi lay bàyyi xel mu ne mu ngi lay siwir bu baax ni ngay ñaaxee ndaw yi ci ñu jàng xam ne ne diine jii kat diine xam-xam la ndax li ci njëkk a wàcc mooy iqra bon képp koo xam ne yàlla daf la cee dénk masuulee war ngaa itteewoo xam-xam moom baayam téere bokk na ci téere bi njëkk a taarif mooy tabsaratul anam fii anna al ilma wal imam e, bon e, daara ji jenn daara la ñun suñ digganteeg yéen xam nañ e, fi ngeen ñu teg waaye ñu itam fu kawee lañ leen teg te loolu waxtu bu nekk bés yaa ngi koy feeñal bëggante nañ ngir yàlla mbokkoo nañ ngir yàlla àndoon nañ ngir yàlla tey chaise bi la yàlla taaj tey te yàlla nga fi yàgg loolu te ànd ak wér yàlla may la fi ndam loo xam ne dana ko weesu njort nee la amul dara loo fi jàng jàngoo fi dara ndax yow liggéey nga ko dem door tey door a ñëw da nga àndoo àndoon ak sa wajur yi yi la jiitu jàppale leen bu baax ba mu fés lu ne nga def ko ci lu ne nga daj ko ci eh, sa mag yi ñëw nga ànd ak ñoom comme ni nga àndee woon ak sa bàyyi wala lu ko gën a rafet eh, ba yàlla teg la fii mu la teg tey te ku du toppee kenn du la topp yonent bi foor foor foor foor yàlla sant na ko mu topp am na ay yonent yu bari yu mu tudd nekk mooy royal ci ñooñu topp leen te ko nekk xam na ne mooy sa nga way jëkk ak way mujj waaye yow loolu nangu nga ko gis nañ àndoo bu rafet bi nga xam ne ñoom nga àndoon ak say way e, ba yàlla teg la fii mu la teg tey mu ngi lay ñaanal yàlla mu ne yàlla yokk sa taxawaay yàlla dëgëral la li nga bëgg sa njaboot yàlla defal la ko te nga ñaanal réew mi xam na ne yaa ngi ci waaye nga ñaanal réew mi surtout mex na bi nga xam ne tey mu ngi ci réew mi wala balaa bii nga ñaan yàlla teggi ko mu ne loolu daal la waxoon ne ñu wax la ko ci euh, gërëm sant bu baax a baax a baax. sëriñ bi nee na jërëjëf Niass. mu na mi ngi amati mbégte mu rëy rëy. jëf ju mu ne ci jëf ju rëy ji. mu ne ci waxtu wii. nee na mi ngi am mbégte bu baax a baax. daje gu mu ne ci daje gu sell gii. ci mu ne ci kilifa bu baax gi kilifa baax yi toog jóge ko ca kilifa bu baax. mu ne di suñu bokki biir. di suñu bokki biti. mu ne ahlul islaami bi rek. mu ne ëmb na lépp. mu ne ñoo koy dund bu baax a baax. mu ne ci yéen ndax seen taxawaay. mu ne di nekk taxawaay diine ji mat sëkk. mu ne yëg na ko bu baax a baax. mu ne xam na ko itam. mu ne loolu lu ñu dund la. mu ne mës sa jóg ci di leen bàyyi xel ñu ci xam ne ñoo bokkul lu ñu bëgg moo ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokk lu ñu nekk mu ne dara génn ci diine dara génn ci lislaam mu ne kon mi ngi am ndépp mbégte bu baax a baax ci li ñu yàlla boole te ñu bëggal ko suñu bopp di ko sàmm mu ne loolu jataay bi dañuy yeesal rek kóllëre googu dox suñu diggante muy kóllëre gu rëy rëy rëy ni di kóllëre yàlla rek nag mu ne moo ngi koy fas yéenee gën a dëgëral rek di ko gës fas yéenee gën a sàmm rek incha allahu fii ak mi ngi nooyi rek incha allah nee na mi ngi sant bu baax a baax di sant sëriñ maax yi moom moom mi nga xam ne moo leen yebal mu ngeen jug ci ay tànkam ngeen ñëw teewal ko fii ci jataay bii te mate ko sëkk mu ne xolam sedd na guy mu ne xelam it gën naa dal mu ne mu ne dara mënta a dal am xelam lu dul sàmm ndono li sàmm li ñu war a sàmm mu ne dara jiitu ci lépp mu ngi ci uxlul islaamiya mu ne xelam mënta a dal lu dul xam ne moom koy sàmm mu ne kon ñu ngi sant bu baax a baax mu ne ab soññ rekk la ci moom mu ne xolam sedd na baax a baax nee na mi ngi sant bu baax a baax mais di bëgg lool ci jataay bi mu ne muy ab soññam mu ne ci li nga xam ne moom la bokk bokk jublu moom li nga xam ne mooy suñ maçon lie mu moo ngi bëgg lool ci jéego yi ak jataay bi jërë ngeen jëf fa tabaarakallah